simila politique day ay wari neen la la daganoon daaw aram na ren le soleil yéene tere bi nga xam ne nag maanaam financement parti politique yi dañ leen koy tere day waaw tor Maurice Soudieck Dione ah nee na gis nga texte bi la xam nga lan la ñuy bañ ay punkal yoo xam kon nañoo nekk ca bitim réew googe puissance étrangère yi la di dugal seen xaalis nag kon ci biir réew mi yéene kaa gi ndimbal ak ay ndonn yoo xam ne nag day jugee nga xam ne nag ay soppe lañu ak ñi nekkoon fii ci biir réew mi la wala boo xaalis boo xam ne ñoom dañoo organiser ay manifestation la cay ruuse dugg kon seen biir kees tribune yéene kaay ne jàppale ne nag Félix Antoine Diome mi la Ousmane Sonko la njëkk a siiñ fan mooy siibu la mu njëkk de lii quotidien ne Antoine Diome moomee daanu na de daa daanu ba wëndeelu laa la wax parce que maître Assane Dioma Ndiaye waaw nee na waa ci yoon la ne njaga la waaw nee kumba am ndeye kumba amul ndeye ca am réew mi quotidien Antoine Diome day ma ngay menacé le quotidien yéene kaay ne waxu xaalis la de dialogue de Sonko boobee yaa jum wala maa jum ma ne looloo am Birame Souleye Diop waaw nee na bu dee am na benn parti bu ñu war a tat ci Sénégal gi lée APR la waaw waaw L'Observateur ne boo sàgganee ci diggante waa kër Ousmane Sonko ak ministre de l'Intérieur gars ci rayante la ñu jëm laa la wax maar di tali la ilaha illallah termine yéene waaye Macky Sall vaaram baa ngi nii vaar Macky Sall ci boppam bi mu nekkee ci opposition bi day moo doon wax ne ay militant waaw ñooy indi seenu ndimbal te laa ngay jóge fu ne Macky Sall ne bi may ñëw fii am na ku ma jox junni place joxe ñaari million ñii joxe kon ñetti million parce que ñëpp xam nañu opposition moom dafa miti opposition dafa miti lii la Macky Sall doon wax Thierno Bocoum day waaw nee na waa Pastef ci boppam respecté nañu loi bi dëgg la Thierno Bocoum de mais gars yi ñan woo ñi bokk ca ñoom seeni soppek seeni xarit laaste Macky Sall kay freiné Ousmane Sonko lay def da koo bëgg a freiné vox populi ne Ousmane Sonko ka ci ay waxtu rek waaw mu daal di dajale bu Pastef waaw nee na sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew googee waaw li ñuy def ci biir réew mi lée bailleur de fonds yi defuñu ko boobay benn ñaar dama neen sénégalais yi nekk ca bitim réew googee ñooy sauver réew mi laa la wax tabax ñetti ñu ngi financé école yi lay di tabax ay école waa kon ministre de l'intérieur day boo nekkee ca bitim réew boo ko affaire bu la neexee nga dugal sa xaalis boo bokkee Pastef mu ne la doo dugal sa xaalis lii luy ndeyam xam enquête yéene moo tax ñoom nguur gi day dégg nañ luy tax te du fay laa la wax les ko yéene Antoine Diome day waaw ma ngay menacé ne kon dana tas Pastef gi lée mënu ko Guy Marius Sagna waaw nee na ko yow président doon Sénégal nag laa la wax Dakar Times waaye loi bii ñu naan nañ leen ko appliquer la loi 89 36 bi ñuy wax ay mbirum financement parti politique waaye xanaa xamoo ne loi boobee ca boppam mooy wax ci parti politique yi ak média détail ay RTS ak Soleil ay rajo Sénégal ak ñoomin seen waaw mais loolee nañ ca wax termine yéene kaa ne maître El Hadj Diouf day wax na lu rëy maître El Hadj Diouf wax na lu rëy laa wax parce que maître El Hadj Diouf day waaw nee na Macky Sall ci boppam moo ñu xamal carrément nañu fii bokk yaakaar la ñu Macky Sall woo ba ñëw mu ne ma awma yéene organiser ay élection locale ak élection député eh way samba eh way samba les si ko yéene kay ne troisième candidature bi day waaw mouvement M24 gaa yaa ngi koy togg de ngir Macky Sall mi lée du fi am troisième mandat de te ña nga xam ne ñoo nekkoon ca M23 day ñooy liggéey ca loolee sur sa année waaye da ngee jee ku mu am ku baax jug nga taxaw ne fil de Rufisque boobee duñu ko supprimer laa la conseil Salam Gueye bu conseil économique association ye nekk ca diwaanu Tëngéej googa yëpp dama ne la amal nañ réunion démb laa la wax ñoom kay nee nañu pare nañu de ngir commune est ak nord ak ouest yëpp ñu daal di koy tas waaye ville de Rufisque bii nga xam ne ab patrimoine mondialu UNESCO la duñu nangu ko suul tey te ko suul ëllëg laa la wax très bien ça tribune yéene kaa ne waaye xaalis bi ARTP naan télévision yi dañ koo war a fay waaw mais seen TV bu dee benn milliard tëgas lëf la war a fay waaye yow RTS TFM 2S ak yeneen télé ñaata la ñu war a fay te gis nga bookar lii DG ARTP li mu war a leeral ci boppam kon dafa bëri yow Zik FM fay nañu te waa D-Média day lu dul xëy xëy ne leen leen un milliard nangam fii ak bi leen tëj waaye xanaa lii mooy tiitalaate wàllum intimidation akumba am ndey kumba amul ndey kay exclusive yéene kaa ne mais ma Macky Sall ak journaliste yee keroog ba dama ne la dëgg na laa la wax parce que yow ab journaliste su a ak suñu njiit yi lée te a askan wi waaye bu yeboo nga changé métier waay parce que la xaw RTS 1 TFM Sen TV 2 loolee kenn président de la république bu woo sa benn de presse nga ne da ngaa yónni ay journalistes yu indépendant moom seen bopp ñu daal di leen fay xaalis jënd tàndanten mais loolu Sénégal dong la am laa la wax mais loolu yemul sax ci dictature te loolee kenn mënu koo tuddee wàllum interview kay mukk kaay leen ma fay leen ngeen laaj ma ay question eh way Samba te jamono jooju te université day en tout cas coow yu bari na évidence seene kaay ne nees def nag université yi ne jàmm daal di fay dellu si sur sa année amal nañoo am ndaje moo xam ne ñaari fan la kon hôtel teeru ba laa la wax waaye la fa ruuse yëpp danañu ko jébal président Macky Sall direct news ne Doro Gaye mi nga xam ne loolee lépp moo sabab ngir jàmm kon mën a dellu si nag ci université yi day étudiants yi waaw fas yéene nañ koo dem nag ambassadeur de la paix ci biir université yi lée moom Doro Gaye waaw université de jàmm dafaa war a am de libération yi nekkaa ne Maguette Sène day DG wu ko dubi waaw te mu dakkaloon na contrat yii wañ nañ loxoom ba dellu na ginnaaw laa la wax sursaane ay waay yàlla waay dimbali ñu fukki doomu aadama ak benn dee ñoo dee ci ñaari fan ci wàllum corona gi allahu akbar la ilaha illallah yéene kaa gi lée moo taxit sëñ Muntaxa dee tey ji ci altine ji joxe na ndigal président Macky ba day Adama Racine Sy nekkoon trésorier général bu trésor waaw daal dinay rafetlu kon discours Macky Sall bi laa la wax les écoles yéene kaay ne waa Côte d'Ivoire day doxantu bi nga xam ne nag maanaam Macky Sall doon na ko doxantu ak otom baak doom ja waaw ñenn ñi jàppe nañ na ay dóor la rek dóor tapale mise en scène la na dem ba jula bugg ca lay comprendre lu bare bare am ñu ne su ab président commencé de intéressé wu ca askan wa jàppal ma day ma ngi